dañu daje woon fii tey li ñu waral ñu daje fii nag mooy dañoo am lu ñu métti te yàgg koo jooy ñi fi daje tey nag euh, nekk na Ndàng Mbaxaan Njuufeen Mbaxaan ñoo fi daje tey am lu leen métti te yàgg ko jooy li ko waral nag mooy wàllu suuf ndax dañoo toog lu mot ñeenti at a ngi nii am koo xamante ne mooy Malick Fall suñu maire ñëw fii di jël suñu suuf bu ko jox ay nit te loolu duñ ko nangu tey ko nangu ëllëg ah mu xaar nag mu xaar nag ba élection des un mois mu toog ci bureau di def ay attestation di ko jox ay nit yaa ngi dégg pour jël seen confiance pour ne leen nañ leen wooteel lool duñ ko nangu duñ ko nangu ëllëg kuñ fi jox attestation nag nga ñëw taxaw fii ci suñu suuf di wax di am looy wax dinañ la rey ba nga dee ah ah loolu nag li li ci li ci tegu nag mooy Macky Sall la ñuy lancer appel moom mooy njiitu réew mi ñu ngi koy wax lii na ci taxaw nu mu gën a gaawee Malick Fall li mu nekkee fii du dëgg du du yoon doo jël suufu jàmbur yoo xam ne ca maam ba léegi ca la ñuy bey ca la ñuy dund ca la ñuy takk soxna ca la ñuy ngénte te la ñuy fayal seen doom école nga bëgg a jël suuf boobu jox bëgg jox ay jàmbur loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dañuy dañuy teel a wax nag balaa ëllëg la xewoon mbaa nag la xewoon feneen di xew fii Macky Sall directement la ñu interpellé suñu suuf si moom lañ am amuñu leneen lu dul moom Malick Fall nag ñu ngi koy xaar ba mu wax nit mu teg fii tànk boobaa leneen dina xew ñu ngi koy wax nag Macky Sall lu mu ci mën na ko def ñu ngi koy lancé monde entier suñu suuf si lañ am amuñu leneen lu dul moom duñ nangu kenn kuy ñëw di ko saax saaxe wala di ko jox ay nit wala jël ay attestation di ko jox ay nit naan leen votel leen ma su ma gañee jox leen ay kër loolu du fi am tey du fi am ëllëg ñun Mbaxaan ak Njuufeen ak Ndanseko ñun ñoo ñëw fii di jooy sunu metit sunu eh, tegg la nga xam ne dafa mel ni ss la wax dëgg yàlla eh, malik Fall sonal nañu. sonal nañu tey sonal nañu suba ndax dafa ànd ay kaymaa njaareem yi nga xam ne ñoo nekk njaareem ñun di ko dugal ci la nga xam ne xamu ko gon Malick nañu bay sunu suuf si Malick ah, nañu bay sunu suuf si nit day am ngor nit day am diine waaye ànd ak ay kaymaa rek nekk ci doomi aadama yi rek di leen sonal guddeeg bëccëg Malick na bay loolu to jaral nañu ñu reyanteeg képp ku ñëwaat ci fii si sunu tool yi de defaluñu dara parce que ndang bur wet ak ay bale lañu ñu mosoon dig boo tey boo tey defoo fa brouette boobu. benn brouette. mu dina leen dina dinaa leen may brouette bu ngeen di balee dëkk ba boo tey bon maanaam jeex na defal ñu dara bugg jël sunu suuf ne da koy maye. xam nga ne loolu bu ko defee du sotti de. problème mu ndox courant amu fi parce que ñetti poto rek la la la indi fii fee mu andi fa ñaari poto. pain ak pa pa pa ay salaire laa fi indi du courant daf ñoo mayoon ay salaire ne maa leen may to fekk Macky moo ñu ko jox donc ku wa dëkk bi waroon naa am lu ma téeméeri poto ñetti poto lañu ñu may. Malick Fall ñu di ko jooy chaque jour chaque jour ñu ngi koy jooy ci li ñu neexut lay def chaque jour fii si biir dëkk bi Malick Fall xootal sa bopp si li ngay def Malick Fall bàyyi li fi dugal te neexut doomu aadama yi Malick Fall. booy def dara day toog doomu aadama yi waxtaan ak ñoom te loo bëgg Malick Fall da ngay ñëw toog ak waa dëkk ba nga waxtaan ak ñoom kon Malick Fall li ñuy def metti nañu tey métti nañu ëllëg. boo dikkee nag ñun lii ñu am nga xam ne ne moom la suñuy maam bay suñuy papa bay te ñu yaakaar ko tey yaakaar ko ëllëg nga bëgg a ñëw di ko joxe si ña nga xam ne xamuñ leen guddi xamuñ leen bëccëg kon Malick Fall lool foo ko teg Malick Fall loolu du fi am tey du fi am ëllëg du am tey te du fi am ëllëg. Malick Fall toogalu jeunes yi waxtaan ak ñoom ba xooli jeunes yi li ñu bëgg mu ànd kook ñoom defu fi dara toogut ak ñoom lu du kum fi toogal di la wax naa la may kër naa def la ñun loolu dañ ko toppatoo kër balaa nga koy maye da ngay toog ñi xam ne ñoom moom seen alal nga toog ñoom waxtaan ñoom doog a buñ si àndee waaye Malick Fall du courant du ndox du dara Malick Fall topp di ñuy jooyloo guddi di ñuy jooyloo bëccëg Malick Fall am benn xale bu góor bu mu jël sax ne la ñëw nga toog fii ni yor saretu mbaam sax nga koy dawal amut. amut amut amut. mooy Mbaqaan Ndang Njuufeen bu Ngaccaan Sinjaan bu Njaayeen dama ne dëkk bii di Mbaqaan Malick Fall boo xamoon lan mooy Mbaqaan dina bay Mbaqaan képp ku mos a attaqué Mbaqaan yàqu nga yàqule. parce que dafa am fa nga xam ne bu fa taxawee bu caaxaan paasee rek Malick Fall mën naa fuuti ba allah yow diin Malick Fall bu bëggee jàmm na bay mbaxaan si ñooñu dem ci la nga xam ne buñ ca mosaa dem rek kooku nekkatul te woor na woor yàlla ak suñ Faliilu Mbàkke bu bayul mbaxaan moom ci boppam wax ma leneen mais dootul tekki dara ba alaa yawmi diin Malick Fall bu bëggoon léppam baax dina defar mbaxaan bala muy jàll fenn mais bi mu ñëwee mbaxaan defarul mbaxaan au contraire dafa ñëw di yàq waa mbaxaan di leen wax wax ju ñaaw wax ji mu wax nag mënu ko yokk da koy di yàqalati ba alaa yawmi diin li muy jéem bu ci arrièreul affaire am day yàqu ba alaa yawmi diin bu xalaatee ne dina jot maire bi ngir di joxe suufu mbaqaan affaire am mooy yàqu te mbaqaan ku ko attaqué rek sa affaire commencé naa fuuti ci jamono Léopold Sédar Senghor ba fi mu nekk mbaqaan dañ ko mën di te sa affaire jëm ci kanam ku ko mos sa affaire jëm na ci kanam ku ko mos a négliger sa affaire yàqu na bu ala yawmi diin